Euh, Cheikh egg si na ci euh, yëglekaay yi li ñu xëyee tey Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar. delloo ziar bu wér euh, soxna maa ngi lay fay nuyu sama naataango yi ma bokkal plateau bi nuyu également mbokki téléspectateur yu télévision Futur Média. Mm, yaa ngi woon stade wala. démb maa ngi woon kër gi nag di supporter. <laughs> waaw waaw day xaw a métti comme sirif bi ñu def rek dañoo yebal. Ah. ñu dem waaw <laughs> xam na liggéey bu <laughs> ñu doon ci l'observateur moom tamit ci match bi la xëyee tey daa mel ni. ci match bi la xëyee gaynde yi nga xam ne nag daal nañuy làbbali ni ki démb réew bu euh, Égypte mieux vaut Qatar que jamais rek euh, daal di euh, dippe mbir mi naam titre bi xaw naa retaan lu tuuti wàllu politique itam moom Idrissa Seck jamono yi nag daal di coppi li nga xam ne nag moom moo di aw doxalin waajte dem ca li nga xam ne nag moom moo di législative juillet at at wi nga xam ne moom la ñu euh, nekk jëye euh, ji nga xam ne nag naata moom moo xew euh, ca université Gaston Berger diwaan bu Ndar géej ñaareelu personne boo xamante ni ñaareelu doomi aadama boo xamante ni daal nañ koy teg loxo ci mbirum étudiante bi li nga xam ne nag dañu ko rek daal di faat ñenn ci ay naataangoom wax ne dañu koo sàkku bay noppi itam daal di koy rek faat violence conjugale kile dafa rek làbbali aw soxnaam ginnaaw bu mu ko saagee ba noppi itam soxna soosee aw belge la loolu tub dugg ci li nga xam ne moom moo di dina yi l'islam enquête xëy ba fësal li nga xam ne moom moo di qualification yu gaynde yi mondial atum 2022 Qatar nous voilà lu nu mel rek daal di euh, dippe wàllu kaso yi France dégage ak itam administration pénitentiaire euh, bu euh, camp pénal jamono yi nag aw ñàkk déggoo la ñu rek nemmeeku ci li nga xam ne moom moo di seen ak biir rapport 2021 2022 mu soxal nag ak ak yelleefuk doomu aadama yi Amnesty International Euh, Sénégal itam ma ngay dànkaafu ci ñenn ki ñoo xamante nii war nañ leen mën a delloo wala boog jox leen bu baax a baax seen ak war ma jàpp na ne moom Seydi Gassama ne yeyoon nañu ko bu baax a baax lépp lu ñeel le quotidien dikkaat ba tey ci qualification yu gaynde yi moom Sadio Mané wi nga xam ne nag moom moom mujjee dóor penalty ba noppi itam daal di koy marqué ci loolee itam rek daal di yeewi ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wu réew bu euh, Sénégal la soleil dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di match wi euh, xëy fësal dëggal kàddu yi ki nga xam ne euh, moom moo di njiit bu réew bu euh, Sénégal moom président Macky Sall li mu xam ne euh, mu di nous sommes les meilleurs maanaam ay gaynde lañu gaynde euh, mu mel ni nag loole rek daal di xëy fësal gaynde itam euh, ci libération daañu dem fa nga xam ne euh, moom moo di ca Qatar yenn ci ay kàddu yoo xamante ni moom mi le nag daal na koy yëkkati moom Chérif ay dara naam jéggalu na waaye ci la jamono nag mi ngi ci bëccëg bu guddeegul wala guddi bëccëg setagul voilà noonu la rek daal di xëy fasal mbirum sonaateel ñenn ci ñoo xamante nii nag ñu ngi wëy di leen tekk yoxoo ba tey ñaar ci ñoo xamante ngi ci euh, mandat de euh, dépôt ak kenn koo xamante ni mi ngi ci contrôle judiciaire soxna naata euh, tribune di kat ba tey ci gayndey Alioune Cissé yile wala boog gayndey réew bu Sénégal mu mel nag Alioune Cissé daal na yëkkati ay kàddu ne rek ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndawam yile kenn na li nga xam ne moom moo di seen ab xarañteef Walf Quotidien di kat ba tey ci bile match kàddu yi ki nga xam ne moom moo di Alioune Cissé moom Kalidou Koulibaly moom itam daal nay rek am aw match niki démb match match woo xamante ni euh, doy na waar loolu moom Ismaïla Sarr itam daal nay àddu euh, jëmale ci euh, mat wu démb bi les ko dikkaat ba tey ci li nga xam ne nag moom moo di euh, égyptiens yi nga xam ne euh, xamle rek ne daañu amal aw plainte jébbal ko euh, FIFA ndax itam anam bi nga xam ne moom la ñu joué li nga xam ne nag moom moo di barrage bi ni ki démb la ñu daj stade maître Abdoulaye Wade mu mel ni itam leneen loo xamante ni daal na koy xëy fësal moom maane ñancoo wi la nga xam ne yóbbu na gaynde yi beneen ab jëye woo xamante ni nemmeeku nañu ko diwaan bu tëngeej ak la ko wër aw policière woo xamante ni dañ koo tegal di digg sërëx ba nuppi itam daal di koy euh, sàkku euh, ñetti defkatu ñaawteef amal lu ni mel keneen ku ñu sàkku itam euh, ci les échos xëy fësal bokk na ci maam Ngoy Njaay moom mi le rek dañu ko rek daal di sàkku ba nuppi itam di ko chantage ci ay vidéo wala photo yoo xamante nii nag jëloon nañu ko ci moom lu ni mel la rek tax na mu daal di sëngeem bés bi la jour dikkaat ba tey ci euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Sadio maane Sadio Bri euh, Salah Sombre lu nu mel daal di xëy fësal xëy fësal itam juróomi ñi nga xam ne ñoom ñoo di équipe yi nga xam ne ñoom ñoo nar a taxawal réew bu Sénégal ca Qatar bokk na ci Sénégal Cameroun Ghana Tunisie ak itam Maroc soxna naata. Mhm. ñu wëyal utali beneen ab yéen kaay laas la mu mel ni nag daal nay dikkaat ci match wile yenn ci loo xamante nii daal na koy jur ci aw lor kenn koo xamante ni daal na ñàkk bakkanam fa nga xam ne nag moom moo di diwaan Thiès euh, leneen itam kile euh, Babacar mbay lay wuyoo moom moomee nag di sàkku soxna soo xamante ni euh, dafa am boroom kër ba noppi itam di ko chantage moom soxna soo lesee daal na yëkkati ay kàddu la mu xamle mu di Babacar da ko doon jox muy diw wala boog muy naan ba rek du ànd ak xelam ba tax na itam mu doon jëf-jëf ju ni mel ak moom diwaan bu Cameroun foofee nag itam daal nañu qualifié Maroc maa ngi koy wax sànq Tunisie Ghana ñoom ñooñu nag daañu aw lëñbët boo xamante ni euh, kile di euh, professeur ca université xalifa euh, bu Maroc daal dina koy def mu soxal nag réseaux sociaux yi maanaam xaralu yees yi nga xam ne daal dina koy def mu soxali njeexital ci ñaari way dencante Euh, source a dikkaat ba tey euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di négociation diggante nguur bu Sénégal ak itam fédération des syndicats de la santé jëriñ ji nga xam ne itam moom la ñu dénk wàll wi moom moomee nag dafa rek daal di génnoon li nga xam ne moom moo di saal wi ginnaaw ay kàddu yoo xamante ni daal nay jibee impossible n'est pas gaynde maanaam gaynde ci diggu mbàdding sono naata lu nu mel rek daal di xëy fësal lu ko bëtam may rek fitam du ko ko xañ euh, témoin dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di euh, gaynde yi ñoom ñooñe nag wutali nañu ca diwaan bu Qatar Sud du Quotidien dikkaat ci barage bi euh, retour mondial atum 2022 gaynde yi ginnaaw bi ñu rek dóoree benn bal ci dara ñu daal di dem ci li nga xam ne moom moo di tiro bu ñetti bal ci benn ak seen digganteeg Égypte record la ñu koy rek daal di addu réew bu Sénégal itam ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde yi waaye jàppal ni entraîneur bu Égypte bi bi daal dinay nangul bu baax a baax ki nga xam ne moom moo di suñu aw ñooñ moom Alioune Cissé ne rek euh, ku mën la xarañteefam doon na loo xamante ni euh, kenn dootu ko natable moom Alioune Cissé itam euh, kañ gaynde yi bu baax baax ci match bi nga xam ne daal nañ koy amal ni ki démb stade moom itam dikkaat ba tey ci li nga xam ne moom moo di cerise sur le gâteau mu mel ne nag gaynde Sénégal yi ni ki démb yokk nañ cere dollu ñeex soxna naata ci hmm. match yi nga xam ne amal nañ ko gis nga nataal bi nga xam ne xëy na ko fësal kanam yi yi nga xam ne gis euh, donc mi ngi fësal aw mbégte ci li nga xam ne nag moom moo di euh, kanamam <laughs> voilà exactement euh, sunu làmb la ñu koy jeexalee dikkaat ba tey ci combat wi nga xam ne nag moom moo amoon dibeer wi nga xam ne moom la ñu weesu diggante bombardier B52 mu mel ni CNG daal na yëkkati ay daan jëmale ci ñaari mbër yi ki nga xam ne moom moo di Eumeu seen daal nañu teq ci moom lu ëpp ñetti million ci suñu ay koppar B52 lu ëpp benn million ak lu ko toftal ci li nga xam ne nag moom moo di suñu ay euh, koppar soxna naata mu mel ni nag mm-hmm. pàcc wu njëkk waa ngi noonu mm. euh, ci li nga xam ne moom moo gën a fës ci li yéeni kaay yi xëy fësal ni ki tey merci beaucoup Cheikh ci kanam incha allah di nga ko yaatal à tout ngay tàggatoo indi laatal ñu benn lu ci mel ni lobs ndax daanaka ñoom ñëpp ci loolu lañ xëyee tey jile muy gaynde yi ak seen victoire face à l'Égypte qualifiée ci mondial Qatar bi Alaaji Malick mooy troisième participation Sénégal n'est-ce pas wala ci euh, coupe du monde mais ñun def nañu ko liñ ciy jàpp rek mooy euh, démb wax dëgg yàlla Sénégal euh, am nañu xar kanam bu bu bu bu bu yees et puis xale yi dañu wane ni dañ ko bëgg wane également nit ñoom ñooy champion d'Afrique Égypte waru leen mën a të ba tax na ñetteelu minute rek ñoom ñetteelu minute lañ ñu dugaloon. Hmm. ñetteelu minute ñu sabañ leen ko <laughs> muy 1-1 mu nekk match bu nga xam ne metti na sur le hmm, terrain. c'était très difficile parce que les Égyptiens c'est des joueurs. très rusé très roublard et très tactique donc euh, causé nañu beaucoup de problèmes mais le match aurait pu être plié depuis très longtemps parce que am nañu ay occasion franche de but comme Ismaïla mhm. yu nga xam ne bu ñu ko dugaloon xëy na duñu egg fii mais là dans le ce qu'on retiendra c'est la qualification euh, on les a bouffés sur le terrain les Lions ont été supérieurs à dans tous les compartiments du jeu sur le plan physique et athlétique les Égyptiens li leen yan attanuñu ko mm. moo tax civière bi dugg na fa duggati dañ leen ko sabañ di leen ko sabañ ñuy daanu comme comme comme ay weñ yoo pomp suñu joueurs yi ñoo leen gën a dëgër ñoo leen gën a xereñ te xale yi dañ ko bëggoon et derrière y avait un public très chaud maintenant ku ñu fay sa bor nag wax dëgg yàlla. nga mer nga mer la nga la nga leble moo baax ñun mosu doo xam luy laser. yéen ñu laserise ñu laserise leen <laughs> loolu amul benn coow bu ci war a am wax dëgg yàlla da ngeen ñoo laser ñu laser leen coow li jeex tàkk leneen li ci des nag mooy le public a été chaud à certain moment il y a eu des jets de de bouteilles loolu dañ koy juróom-ñetti at yor xale yi ba miin leen ba xam naka lay jëflante ak ñoom. Mhm. et les enfants également euh, les joueurs dem nañu ba xamante bu baax seen biir ñi nga xam ni sax ñoo mujjee ñëw euh, dañu mujj fondre dans le moule et ils ont le même tempérament on nous tue on ne nous déshonore pas. Mhm. les lions se sont battus et li xew moo di ne. Euh, le douzième gaynde muy ñun ñii ñëpp mhm. mooy mooy mooy le public il faut que loolu ñu perpétuer ko c'est-à-dire que aujourd'hui euh, euh, le stade maître Abdoulaye Wade doit être un enfer pour ceux qui viennent ici. Mhm. te loolu gis nga bu ñuy wax le chaudron. de de de de euh, de Saint-Étienne ou bien ñu ñuy wax le chaudron de Sourouléré ah le le brouillard de Radès et cetera am na ay stades yi nga xam ne boo fay dem tu as la peur au ventre et ça mhm. on n'a jamais su le faire nous Sénégalais da ngay ñëw ñu dérouler le tapis rouge nga dominer ñu ñu siffler suñu équipe mhm. alors qu'on doit être présent de la première à la quatre-vingt-dixième ñenn ñi fa nekkoon sur place. c'est-à-dire man c'était la première fois ma seetaan match cent quatre euh, cent vingt minutes taxaw. tooguñu sentiroo coono. te sentir ma coono kenn toogul ci saisi dañoo taxaw team égyptien yi di leen ko sabañ ba mu ba neex. mais loolu mën na continuer Chérif parce que avant xaj na euh, suñu déception yi ñu daan am moo daan tax ba supporters yi daan wàññi seen xadar tuuti mais Malick wax na ko gagné nañu kaan qualifié nañu mondial musta am guléet donc loolu supporters yi gëw ma ñu ñu ñu wàcc. démb boo xoolee rek li nekkoon ci stade bi li génn ci mbedd yi après qualification bi. oui parce que am nañ équipe ak génération boo xamante ne vraiment mën nañoo am espoir ci ñoom. te mën ngaa jàpp ni ay compétition ak yeneen rendez-vous yoo xamante muy Coupe d'Afrique wala sur le plan mondial. Mhm. mën nañ fa wéy quand même dañu indil satisfaction parce que ñu am mental lan te je pense que c'est important loolu lañ doon reproché bu lu bëri ñi nga xamante jël démb aussi les deux premiers penalty à domicile nga raté ko c' pas évident quand même nga dellu siwaat donc boo xoolee après mi ngi doon arranger encore les gars montré que ni amutoon espoir boo xamante mën nañ nag il faut quand même am na ci tamit gis nga numéro bi Ibou Diouf sol muy Sabali son retour aussi je pense ah que a été une satisfaction si li nga xamante ni kon mooy moom ak muy Bouna Sarr Pape Abdou Cissé aussi bi nga xamante ni moo mbëkk na leen mbëkk bu ne. nawetaan nawetaan non c' est important maintenant laser yi c' est un débat gis nañ même sur le plan bon deru Sénégal nag mi ngi ci yàqu mais. comme ni ko waxee non non si si. non non si si si quand même. mais sur les réseaux sociaux. voilà c' est euh, ko Sénégal ak voilà loolu. bon c' est de bonne guerre parce que dañu fàttali ne ñun mosuloo xam lu laser da ngay dem ñu lay teg ci laser que c' est pas médiatisé. xëy na bon dina dina régler benn problème boo xamante mais mais mais il faut condamner non Malick parce que gis nañ sa Salah ñu koy exfiltrer quand même ñu gars ko war nañoo jàngat ci stade benn affaire mooy sécurité bi war nañ ko gën a renforcer am dañ faa indoon ay stagiaires yoo xamante ni la fin du match des gens ont la pelouse mais li ci li ci kii li ci li ci am tamit bees mooy ah, xëy na ñu ngi door am stade boo xamante ni nañ euh, ci jàngat parce que li xew attention Chérif ñu ngi door am stade boo xam ne amul piste d'athlétisme boo xamante ni xëy na day ñu jegee terrain bi nii amuñu woon stade bu ni mel c'est pas du raison parce que aussi bu fekkee dañu homologué stade bi ñu ne quand même mën naa recevoir ay compétition internationale c'est vrai que ku fi ñëw mën a nekk en fer mais nañ ko teg ci yoon parce que bu Sénégal ñàkkoon tey musiba mën naa am la xew Nigéria gis ngeen ko ah, des gens ont envoyé la police rajaxe stade bi lii aussi bu ñàkkoon démb nii la doon mujjee parce que jëlun disposition yi nga xamante ni stade yi stade yi bu na fi ne nekkoo nekkoo spectateur da nga na ñëw pour nga assister bi mais gis na ne à la fin du match des gens ont envoyé la police ba équipe bi sax mënuñoo def tour d'honneur wala nangam remercier ñi nga xamante ñoo ngi salaam yi dañ ko exfiltré ñu tiim ko parce que fi ñu ci tunnel bi ay ay ko doon sant image yooyu buñ ko yóbboo kaaf wala nangam mën na nekk voilà mën na jur préjudice ci jàngat beneen yoon mu bañ a amaat fii non seulement suñu dara ci yàqu te mën nañ ci am ay sanctions non benn benn

des actes de vandalisme et d'indiscipline notoire mm-hmm. de la part des Nigérians mm-hmm. parce que mm-hmm. inacceptable en plus sport ñàkk def ci bokk fair play il faut ñu xam ne ñàkk def ci bokk ñun bu ah. du demee nii ah, de façon on ne peut pas imaginer bu ñu ñàkkoon ah. ñu <laughs> euh, ñàkkuñu Marcel gañe nañu euh, ñàkkuñu te fii duñ fi gaaw a ñàkk bu fi ñëwati dinañ la dinañ lu méttee méttee métti mais amul sànni xeer amul sànni butéel amul saaga dinañ la eh, ah, waaw en fait li ma bëgg wax mooy déjà pour revenir au match on on attendait vraiment depuis très longtemps cette deuxième qualification oui, d'affilée. Euh, maa ngi fàttaliku 2006 euh, la grosse déception qu'on avait eue mm. en 2005 plus précisément pour la pour, pour le mondial 2006 donc ba ñu toog ba ñu togo di toogloo. Euh, donc euh, xaaroon euh, nañ bile donc ça c'est ça s'est réalisé alhamdulillah et puis euh, on a découvert quand même euh, un public Euh, pour moi euh, champion d'Afrique mm-hmm. aussi hein mm-hmm. euh, ndaxte peut-être sànq yaa ngi koy wax Malick pour man l'autre facteur ci ci ci ci public bi nga xamante ne dafa dafa nooyoon si si j'ose dire bu njëkk ba c'est que mm-hmm. stade de l'amitié bi ñu nekkoon c'était un stade ouvert donc c'était difficile de faire du bruit ba ñu ba ñu dégg la bi nag c'est un stade fermé qui contient bien le bruit et c'est pour la première fois ma gis ma dégg benn benn hymne ñu koy entonné te kenn déggul hymne bi euh, parce que le public a été derrière, a, a, a, sifflé, comme, euh, comme il se devait. Alors dans cette même, dans je vais, vous surprendre un petit peu pour ñi nga xamante ne dañoo euh, championnat européen. Mm-hmm. On en tout le temps des, des, des jets de projectiles qui ne sont pas euh, à, à apprécier, qui sont condamnables quand même. Non après après voilà Marseille Lyon Lyon, Paris Saint-Germain, le, leur public sont. Pas pour sont, justifier les actes, ils sont, voilà. difficiles à, exactement, ils sont difficiles à contenir. mais en général en y a pas de s'il y a pas de d'envahissement du terrain bu fekkee ne nit yi tant que envahir wuñ terrain bi rek jàmm la léegi lu ñu ci mën a am mooy ci genre jet de projectile ay sanctions voilà euh, et puis li nga wax en tout cas ci stade bi donc loolu tax euh, proximité publique bi voilà donc euh, loolu loolu lay bi match bi day tax ba ñu jàng ba beneen match bu nar a ñëwee lépp lu ah, ci rëkk amoon rëkk rëkk dañ koy jooyanti voilà c'est tout en tout cas euh, merci beaucoup on va on va euh, reparler du match encore une fois au cours de la matinale dinañ ci waxtaan yow moom Qatar doo dem yow yow moom Qatar doo dem euh, le public sénégalais n'a jamais été chauvin ah. c'est-à-dire les gens nous ont poussé mm. à être agressif dans le bon sens du terme. ni ko xale yi di et il le faut il nous on a souvent été spectateurs à la place de de, de supporters mais hier le public était là on était de vrais supporters et un vrai supporter c'est faire du bruit pousser son équipe vers le dépassement mm-hmm. et on était là <laughs> les joueurs nous ont senti il y avait cette synergie entre les joueurs et le public mm-hmm. et on a gagné avec la manière on est qualifié c'est ça c'est l'essentiel. allez merci ñu jàll ci leneen muy un jour au Sénégal. bu Égypte demoon coupe du monde musiba <laughs>